asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo émission bi di euh, taxaw seetlu maa ngi baalu ñëpp ax comme ni ñu koy defee saa su nekk sonal nañ leen amel nañ leen ax dix ans dans la forêt tabaski saa su nekk si àll bi la may fekk démb waxtaanee nañu compliqué compliqué yàlla ñu si yàlla musal am na ñoo xamante ne ni dañuy dem ba euh, seen àddina dafay jaxasoo si ay mbir yoo xamante ne ay doxalin yu doy waar la yoo xamante ne daal vraiment c'est à mettre de côté compliqué nag dafay dem ba yóbbu la si li ñu wax ñëkk tey ñu ngi waxtaane baat bi ñuy wax ñëkk léeg-léeg ñu jaawaatle nit def benn affaire ñu ne dafa ñëkk fekk moom xam na fi mu tegu nit di dund benn affaire ba un moment donné mu xam ne moom jël yoon wala moom moo koy gënal mu topp si yoon wi rek di wax ñu ne ax ah, dafa ñëkk si li mu nekk des fois compliqué dinay indi lu nu mel nit dinay compliqué dem ba compliqué woog boobu noonu wiite ko ci yoonu ñëkk ñëkk nag di mbir mu nga xamante ne ni mbir mu doy waar la ñu di si réer souvent si ki nga xamante ne ni moom jàpp nañ ne dafa ñëkk ak ki nga xamante ne ni jàpp na ne dafa tegu si yoon woo xamante ne ni daal dootu si tegeeku ba abadan ñuy xool nag li di jariñ nit ki saay su nekk wax naa la ko boo xoolee démb nga xool tey fi nga jaar ak fi nga yëg si su fekkente ne ni c'est positif mooy bi maanaam lépp rafet na lépp jekk na foofu nga tegu noonu bul fa teggeeku benn yoon su fekkente ne nag la nga def gis nga ne vraiment sentiment na rien ay jafe-jafe rek la lay indil ay problème rek la lay indil amul dara loo xamante ne nii réussir nga ko da ngaa ñëg si yoon wi nga xamante ne ni moom nga nekk xam nga ne moos baaxul aka bon a bon a bon nekk si yoonu bon te bugguloo deltu ginnaaw aka ñaaw a ñaaw a ñaaw nekk si yoon woo xamante ne ni daf lay yàqal daf lay tumurankeloo jëmewul a fenn mais nga màtt si loolu rek bañ na doo fa jóge loolu mooy ñëkk ñu jàppaat nag ne ñaari nii war nañ ko ràññee ki nga xamante ne ni dafa jóge si li nga xamante ne ni moom mooy objectif mu jóge daal di dal si li nga xamante ne ni moom mooy compliqué bi mu jógee si compliqué mu dal si li nga xamante ne ni moom mooy ñëpp ngay gis continuité bi fi mu jóge woon ak fi mu si ak fi nga xamante ne ni fa la nar nekk bañ ne dootu fa jóge ñëkk yàlla nañu si yàlla musal boo demee ba nga xamante ne ni toog nga nga waxtaan ak sa njëgënaay mu wóor la ne la am na ñoo xamante ne nii da nga leen naa war a baalu baalu leen ak comme ni ñu profité si tabaski bii nii ñu profité baalu ak ñëpp ñu nga xamante ne nii jàpp nañ ne ñun ñoo leen tooñ ñu ngi leen di baalu ak parce que te nit di nga tooñ nit si loo xamante ne nii loo xamul la mun nga nëkk ñëkk bañ ne dootuloo deltu ginnaaw ne doo ko baalu ak ilaa yow mi din loolu mooy ñëkk. loolu yàlla ñu si yàlla musal nañu baalu àq ñëpp ñu nga xamante ne ni jàpp nañ ni sax ñun ñoom ñoo ñu tooñ ñu balu leen àq képp ku nga xamante ne ni jàpp nga ne sax ne yow yaa ko tooñ yow tamit nga am mat gu toll nii nga baalu ko àq asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bii nag mun na nekk aussi sama cas parce que mënuma si génne sama bopp